sosul tariixa daa yeesal si li Seydina Muhammad indi loolu nag ku ko yeesal si yaa ko waa fe ñëpp ji ku ko yeesal si yaay lif ñëpp yaay sëriñu ñëpp kenn génnatu la dégg nga ca di noonu siwaa islaamihi laa yuhmadu moom daal boo yorul lislaam nee na yàlla nangul la indal ilaahi wa bihi nu jaddidu dégg nga di mun siwaa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu islaam moomu laa yeesal si man Ahmadou Mbacké léegi kii ci lislaam kan kan ku nangoo gëm Seydina Muhammad la sëñ Tuubaa di wan ginnaaw mais ki nga si ni nasaraan bi ko doon sonal sax daa wëlbatiku ni baal naa leen ngir mi nga ne moo tax mënul maaloon mhm. waaw kooku dina woddiku nitu diin ah déedéet. ma fawtu anil aada i turan. turan. sëñ Tuubaa du ba dikku nitug diine. wanul ginnaaw genn nitug diine. Baye Moussa dani. Hmm. Sëriñ Bamba moom. Zahir sa baatin ba yàqu ko. mel ni dañ ne ko lu tax. mu ni du dóor ndaw du merloo mag mënul gan te lay dëkk. amul xaar ma yàlla du xas nit ci waa këram. du door daw du meloo mag manu gante lay dëkkam amul du xas nit ci waa këram. xaj buy jël zaahiram xaj buy jël zaahiram. sànga baatinam sànga baatinam xajul nit mbiram biiram xajul nit mbiram kawar. biram saayiram ak dara yàqu ko li tax la baxtab yàlla yow waa ji may sewal ndegam gis mi tax ma dib gewal ku kan sebal te sellal na tugoog moom ba la fu desul ci mbokkam yamba jaamur yamba gaay koy dikkal ma jébbal ko saa mbir de dem ko koy de du Bamba <laughs>